un premier temps lu ma nangu la lu ma comprendre la tant que effectivement comme ni ma ko gisee nii mi ngi nekk loo xam ne lu naturel la nekkul dara loo xam ne yéen ñaar ëllëg mën na leen indil gaañ-gaañ mhm, te lii ma gis nii gis gisuma si ngaañ ah, dëgg neex yàlla ah. lii ma gis nii gis gisuma si ngaañ ah. ayca ñu jox mu naa sax table bi mu daan ñuy mu daan ñuy mu ñëw dëggal ne li ngay wax ni waaw li fi nekk dara amu ci ngaañ exactement ma mm. doog continuer ma jox munaas. waaw. ayca munaas. <laughs> Eh. kon kon kon li may wax. Oh, ma ma ma do ma doog a daaneel. yow yow vraiment damay li may njëkk a wax gu mooy yow jaraaboot. Mhm. waaw ndax nag eh, xam nga nee nañu waaja gaañaa koy xam. Mhm. waaja gaañaa koy xam. dëgg la bu ñuy nekkee di waxtaan bu ñu nee der da ngaa xam fa ñu jëm dangaa ngaa teel a daaneel. Mhm. tubaarikàlla te lii pour lu leen bëggal rek la. pour topp seeni bànneex lañ. ndax nag wii musée. Mm-hmm. boo demee di wax wii monsieur ñëw ci kër gi naan wii madame bu yàggee jabar sàppi la mm-hmm. te euh, nee nañ xaritu golo it ku ko am sa ngeem du tag ci kaw garab mm-hmm. tubaarikàlla te yéenay suñu xarit suñu sëriñ di suñu lépp ba tax na da ngeen di sonn ñu ñëw nag andi yoo xamante ni ay bagage yu naturel la yu amul benn feebar exactement parce que nag fi jamono ji toll na foo xamante ni jigéen bu ci nekk dangaa war a yeewu ndéem sax jigéen ñaa ngi nelaw ndax nelaw amatul parce que nag dañuy xool lu naturel ak lu baax ak wér-gu-yaram li gën ci sa jëkkër di baax ci sa jëkkër nga nga def ko kon mu ngi noonu euh, dañoo àndi ay bagages yoo xamante ne euh, maanaam róonale jeex na fi róonale boo ko déggee mooy ñi nga xam ne dañuy sol sër bu verte wala t-shirt bu bleu wala guddi gi jot nga am na neen noo fanaanoo nag bu guddi jotee góor da nga ko war a bégal xolam dafa war a sedd dafa bokk ci luy téye góor lii bokk ci sëy man mënuma ko gëm dafa bokk ci sëy parce que nag lii day tax góor du naax imaginer bu gudd jotee ñu seddal benn caw si xiir ba mu neex di la ko raatale nank sa digg ginnaaw di barasti ko muy dem sa xool di sedd dalay teree naax tubaarikàlla nga jël nag benn benn cuuraay bu baax <laughs> nga dem sonn teree naax pa nga daal di sonn imaginer nga dem liggéey daal di sonn parce que jeeg bu ci nekk jeeg bu ci nekk da war a am sa huile de massage xam nga nga fiy jóg en tant que kilifa ndax ndax suñu kilifa ngeen di dem di di am nga ko bii nga wax bu ko ragal waxal rek Seydina am nga ko wala amoo ko. xam nga ko am na ko. ci suuf la ko waaw ko Oustaz nga xam nga euh, tey jii père. bu sa jëkkër wa euh, wàccee daal di sonn. le temps que mu nekk fi naan na ko bàyyi muy dem faneen di massage yi. yow lan moo tax mënoo ko defal sa bopp Sofia. waaw huile massage baa ngi nii c'est facile da koy jënd. waaw. demal yootu woo umu xaabaan mu jaay la ko nga diw sa yaram ba mu tooy commencé à di maase nag fépp fuy metti rek boo fa laalee sa yaram sa jëkka daal di xelam daal di sedd tubaarikàlla jël say pilule commencé say dunk di ko dunk di raay buy wàcc di caressé fépp ngay wàccee gis nga bu fekkee ni tamit xiir bi xamuñu ni ñu koy defee. mun naa fer la. ah déggu la bu baax. donc fer bu ñuy commencé rek tëx tëx tëxlu gi. fer daa am ay dunk dunk bi dañ koy sedd ci frigo ba mu sedd waaw donc ci jaayaale waaw war ko dunk moom yaa ngi dégg dunk bi dama ko dama ko wàññi dunk baa ngi fee dinaa la ko wan léegi Prospère bàyyi ma yow tamit ma laaj eh, dimbale ñu ci dunk bi yow dimbale ñu ci dunk bi yaa yaa boo paree ci li dama bëgg a xam père léegi dungu yi dungu lan la soo mënoon a egsi sax da nga koy làmb nga xool nu mu seddee guy léegi loolu lan la di taamadaay yi. am caw sa xiir la dañ leen koy caw 24 heures sur 24 bu guddi gi jeex. di ko caw kat. den ko làbbali di leen dóor rek di leen yóbbu Jérusalem den andi Bagdad tubaarikàlla. dóor dóor bu neex la. sedd na guy ne glace boo ko làmboon léegi sa yaram daw. xanaa du ñun ñoo leen bëgg. ah yow jëgal prospère nee a ah, un ah, un yëngal na guy ah, <laughs> mais li dafa nii xalaat nga ni mu seddee guy nga dem ba day door ci dafa glacé sa jëkkër. ah sa borom kër. mais ci ab yar ko teg ci waaye père ma ne. yenn jigéen dafa war a aye. ah jigéen. waaw Sofia dafa war a aye souvent. aye jàpp sa borom kër tiim kooku yar di ko caw. boo ma mayee ma ñëw. jigéen souvent da ngay woo sa jëkkër ni ko tey maa aye waaw yaa ngi dégg ak jeeg da ngay ay yenn saay sa jëkkër bu ñëwee waaw bu dee yaa moom sax ay manote ko bam ne deng manote ay delgaat nga jàmm jàmm sa jëkkër yow ay jant boo ko defee dinañ yow sa père ba ma joxoon loxo bi léegi moom la nit ñi manotee man kon <laughs> magat yaa ngi nii kay kenn du ko mébét ci man te gis yàlla mu set bu ci aye kii na ma yàlla père kaay ma mënate la rek dama lay ñaari loxo yi laaj dama ab yeew kenn du ko natt ci man man kay lii oh, lii dara bëgg oh, oh, rek yàlla bu nu ma yeew ci barke Seydina jox ma ma noonu yàlla na ma ci yàlla musal tubaarikàlla bu dee jéeg bi daa aye nag tey yow oustaz jox ko mu yeew la <laughs>

xiir gi fii lan koy commencé fekk defal nga sa biberon ba pare. di di di dóor. waaw. biberon papa biberon bi bii di ñëw dinaa la ci defalal lu doy waar jox ah, saxal la ko foofu. ah nga koy defal sere nag. <laughs> il nga bi biberon nag daa koy saxalee. daa am deux heures nag sere nag mooy gën ak meew. <laughs> biberon bi façon biberon bu ne am na. non <laughs> tey laa jëm ci waaye Asène. yaa ngi dégg. keneen nu yeew la jàpp di dóor mu tibbee. mu ngi ba pare dafa am loo xamee dafa am message déglul waay yow noppi naa <laughs> ah euh, am loo xamante ne su ma paree léegi il faut ma jóg saxal la ci tuuti man waaw man seex yàlla tere ustaas a ngi dee xaaral ma andi kudd bi il faut ma saxal la ci teer ba pare xam nga lii day dafa nekk nuisette Mohamed yaa doy waar Mohamed eh, tey soirée relax la on est on man nag wuyul. jeeg <laughs> bi xam nga lii la dafa nekk nuisette. waaw man bagage fii muy di pour lan la. loolu laay wax démonstration. day wane day démonstration la. démonstration da ngeen di dëgër rek mu solo père. waaw joli. c'est la. nga ne mu solo ko kat. moom la ñu doon lópp. nga xam ne ni ngay wax ñu koy dégg. dañ koy solo ku góor est-ce am na. <laughs> ku jigéen ki ku góor ki dem naa lay yonkal kàddu alifas la tudd. ay. dala làbbali nga damay takk nga takk. nga alifas bi nan la ko góor ki ngay takk ah? noo defee alifas bi. alifas bi yéen a jàkkaarloo yéen a danga yow boo takkee fay arsenal ba pare. waaw da ngay jël sa beneen ci feru ku góor ki takk ko ngeen jàkkaarloo. waaw mais na fekk nag nga collier ci suufu bët ba pare daal di def sa collier. waaw ci guddi gi fekk nga lancé benn poudre talc waaw boo solee si lii mën ngeen a wala mhm. mhm. waaw boo solee euh, benn benn par exemple fekke fekkee da sol benn nuisette boo xam ne bu mauve la waaw au lieu ngay wuti ji ay fer saaroo nag maarooto da ngay jël sa ñett yi tubaab na de nga xam ne moo leen ah, teree naax man kay moo leen teree moo leen teree naax mooy teree moo teree góor ñi naax naax waaw ñu taxuma ko maanaam di fàtte original la benn quinze mille francs lay jar nañu bàyyi feru kaws yi jeeg du takk feru kaws tubaab te dama ni boo teg boo soli sa nuisette bu meuf ba pare ba teg ci jëlal ma ay suset kawas yu meuf nga teg ko ci suuf. <laughs> ay kawas waaw. kan mooy sol kawas yi. day fekk nga commencé maase digg ginnaaw gi mu wàcc. yow yaa ne kawas yi baal ma. ku jigéen ki day sol kawas bu ku góor ki day sol kawas waxoon dëgg la de nee na barki dem xaw ma bala ngay tëdd dangay sol ay coquette. waaw ay coquette. coquette yi incha allah yëpp dina ñëw. ay coquette nga yëg moom ci kaw lal. waaw wax naa la ko fi nga weddi ma. fer euh, gis nga fer bi léegi kenn jaxaseetul ay nuisette fer. ambiance de temps en temps mënul ñàkk. ay coquette lu bi imaginaire rouge sang la yaa Seyda. rouge danger la tubaab sax da koo ragal. da ngay jël fer bu rouge daal di ko ciy teg. mais bii mën nga cee boole 24 fer da ngay boole ñaar fukki fer ak ñeent boole ko ci ricc sa ndigg dooxal ko tubaarikaal la. papa wul. te naan ko nijaay loo yenn. yow bàyyi moom nga maa bàyyi wala mën nga maa bàyyi. bii nag moom. xadi kolonel laa ko tuddee ñi nga xamante ni danoo sylviser tubaarikaal te bëgguñu ay fer mën na ñoo jël ay chaîne ndigg bigal seen jëkkër selon lu sa jëkkër bëgg Sofia waaw nit doo def lu sa jëkkër bëggul dëgg la bu ah, sew yii la sa jëkkër bëgg ko ba mu doy ndax dafa am yoo xam ne da koy takk sam samedi am yoo xam ne vendredi nga koy takk am na yoom guddi àjjuma d'accord bu ci nekk ak bisam la bu fekkee da ngaa pare ci famille meuf bi nga daal di koy jóor nii soo paree su ko ñëw ci rouge danse bi tubaab bi ko sàkk sa da koo ragal ndax rouge bi ba pare danga boo boo koy sol da ngay jël di takk sa bëtu jëkkër ba pare. ngay moom sa borom kër nga takk ay bëtam moom bët yi ba pare. on bande les yeux. am na looy def ci nopp yi nag. Mhm. Sophia nga ne on. pare naa ci du ma dama ci delluwaat. xam nga ni lii dégg ngeen Sophia nee na on bande les yeux. xam nga ni lii dafa ànd. xam nga ni lii dañoo ànd. Ah. Ah. mu ne on bande les yeux. mi ngi noonu xam nga léegi lii dafa yëkkati rek bi mu yëkkatee avant muy wax moom Sofiane on bande les <laughs> donc elle a compris. lii noonu. mais mais jéeg gi damaa bëgg ñu bañ di fàtte di sang seen jëkkër yi. waaw góor da koy sang góor yi sangatuñ seen bopp loolu ayul sa borom kër. mi ngi noonu bonbon les maris s'il vous plaît. saa yi nga jàpp ko dugg ko ci salle de bi sang ko ba mu set def bi jël benn serviette bu baax. tëral ko naan ko bébé tu ma manque. Bras bu lépp yëpp tu as cinquante secondes. matul une minute sax pour ñu dem ci leneen. parce que sinon rek damay bañ genre genre kële ne daanu. tarxiis mun na mun nañoo dem ci dem ci leneen tamit. Mhm. mi ngi noonu. ayca euh, mun nga dem ñëwaat yi si des teel ma ko ma ñëwaat. léegi munaas ayca mun nga dem yaa Seyda Absa ñu ngi waxtaanee lu am solo. Père Mbaye Ngoné nee na pour moom yi fi munaas jox te génne yëpp. Euh, bokkul wala du tee góor ci ci ci kër. waaw jigéen daal jigéen daal na jox jëkkëram jàmm déggal ko. ak ay muut yu mu fi wax sànq Prospère nag nee na lii bokk na ci li nga xam ne papa dégg na yii dina am nee na ko ci boole Prospère nee na yii bokk na ci li nga xam ne da tee cuuraay góor yi ñu toog seen waaw cuuraay yooyu loolu moom bokk na ci jigéen day set yaa seeda relax rek fas kanam bi jaru ko dañuy waxtaan rek soo amul jàmm nu bala fa dañuy waxtaan rek euh, trop de femme trop de tas trop de tas dommage que du neex mais góor kenn mënu koo téye yaa Seyda yëkkatil micro bi tuuti. maanaam góor kenn mënu koo téye. góor. kenn mënu koo téye. loolu la ñuy déglu. góor muy bëgg a toog rek toog. wala mu am jàmm. góor bëgg a toog rek toog rafet na trop nag li mu présenté nii dafa rafet macha allah suñu yëf la yëfi jigéen la ay feem la. Mm-hmm. mais. feem dafa am loo xam ne moo koy valorisé mooy li papa wax sànq. Hmm. mooy feem bi gën a rëy. Hmm. nga xam tey suñu jëkkër yi loolu la ñuy xaar ci ñun. Hmm. mooy jàmm. jàmm wallaay faal loo bari bari bari feem. loo bari bari bagage. am na jigéen ñoo xam ne ay indi cuuraay liñ ci yor kenn xamuñu mu liñ yor ci sër ay almuwaar sër lañ yor. ay juugi fer lañ yor. ay bërigo cuura ñu yor lu ne yor nañ ko mais mënuñu téye seen borom kër lu tol ni 30 minutes ci kër gi. Uh-huh. ànd yu bari toj na ndax xeex yi. <laughs> yu toj na. ànd yu bari day toj day fell. parce que sama benn yaay dañuy waxtaan ma ne ko yaay booyu lan moo tax yéen ñun bagage yi ñu yor tey yéen amu leen ko woon. te yéen yéen ñu doon gën a neex sëy yéen ñu doon gën a yàgg ci sëy yi. Uh-huh. mu ne waaw ndax dañoo am loo xam ne yéen amuleen ko woon amuleen ko. ma ne ko lan la mu ne mooy mooy feem bi nga xamante nii góor ñëpp moom lañu ñu bëgg ma ne ko ban feem la mu ne mooy nangoo muñ mokk pooc nangu jigéen mën na am lu ne mhm. te du nangu dañ ko fay baax romb ko mu naan pourtant de sama ceeb xonk na waaw sama lëwal for na uh-huh. lu ne am naa ko. waaw sama cuuraay sama cuuraay neex na. wallaahi Fall sama lal weex na mais kenn du ci tëdd. kenn du sa ceeb kenn du ko lekk. sa attaaya kenn du ko naan. Hmm. sa sañ sa kenn du ko gis. Hmm. ndax àndul ak jàmm. amoo jàmm jàmm. kon li may wax mooy góor moom. day bëgg a toog rek toog mais kenn mënu koo téye ci kër. lay bari na ay bagage nag yu ñuy téye yu ñuy naxee naxee naxee góor ndax affaire bi naxante rek la di sëy naxante rek la danga koy nax mu lay nax. da nga koy nax muy gëm muy gëm ni yow yaa ngi koy nax góor ñi danoo muus bokk na ci seeni feem nga wallee ni leen téye naa la ñoom seen bopp ñu walla ni la téye nga ma jébbal naa la sama bopp fekk téye woo dara ndax saa boo defee say feem ba jeg ba yaakaar ni kii joggati nga wan nga ko loo xam ni kenn du ko gis bu bu génnee day dem ci lu gën a yées li nga ko wan góor la yàlla bindee noonu. am na waaw loolu am na waaw. dafa am ay jigéen ñoo xam ne Mouhamed. li lay wan ne am na ay jigéen yoo xam tam am nañu ay ay bagages yoo xam ne sax du xeet yi mais yeneen la yéen a ngi dégg xaswatu badar xeexu badar bi amoon jullit ñi ñoo gañe woon yéefar yi mhm. yéefar yi mer problème boobu jigéen ñee ko rek ci naka xare Uhud bi ngay dégg mu metti ba ba jullit ña daw ay jigéen a taxoon loolu am mhm. jigéen ñu am feem xanaa xamoon ni ni njibar amee njibar nga mën a njibar sa jëkkër njibar baaxul nag day da yàqu njibar ko ba téye ko noonu la amee ay kaddu kaddu yoo xam ne jigéen da koy yor mooy raw mooy raw njibar mm-hmm. ay kaddu yoo xam ni jigéen dina koy jàllale ak boroom këram kaddu yooyu mooy raw njibar moo tax jigéen ñooñu bi ñu meree ca xaswatu badar ni ñu def seen seen seen seen seen mbokk yi xam nga nu ñu def dañoo woo seen jëkkër yi assemblée nationale ni leen kaay leen Leyti kaay Papis Bodian kaay Omar kaay Mohamed ñëw leen euh, euh, Prosper taaj leen ni leen ñu ñàkk joom ngeen yéen waxuma ñii de ñi la laay waxal ñi leen yéen nan ngeen def ba waa kër Mohamed yi dóor leen jigéen ñi de papa taaj seen jëkkër xam nga yi ay fem la fu nu fekk aw ay waaw jéeg jëpp nag ñoo def loolu jéeg jëpp ni seen jëkkër yéen ñu ñàkk jom ngeen hmm? yéen nan ngeen def ba waa kër Mouhamed yi dóor leen xanaa yeen du ngeen ay góor lenn moom ñu ngi leen koy wax su ngeen demee bii yoon ba ñu dóor leen su ngeen ñëwee du leen taalal cuuraay du leen takkal ay fer te du ngeen tëdd ci suñu kawlal suñu kawlal yi fentel seen jëkkëri ay woy ñoom jigéen ñi waaw naa leen naxlu banaatu taarix namshi ala namariq in tuqbilu nuwaani aw tudd biru nu faariq firaaxu xeyra waamiq bañ leen ko waxee la góor ña dof maanaam lu ba ni leen ay jongama lañu yoo xam ne ci kaw njegeenaay la ñuy dox laa naan seen jëkkër ñun ay jigéen lañu yoo xam ne xolal bu gudd gi xaajee ci kaw njegeenaay lañuy dox naan leen ay jigéen lañu yoo xam ne bu gudd gi xaajee dañuy fëgg ñuy fëgg gis nga bu ngeen bu ngeen bu ngeen taxawee dóoru waa kër Mouhamed su ngeen ñëwee dinañ leen akolaat dinañ leen dugal ci néeg yooyu. loolu góor ko wax mu rey boppam. waaye su ngeen dawee. voilà oh dinañ teqlikoo ak yéen ba ilaa yawmi diin. moo tax gis nga gis nga la xew Uhud. waaw la xew Uhud yëpp yooyu ay feem la yoo xam ne ay jigéen a ko doon def. Ah. kon feem yàgg na sofi ci àddina yëfeer yi keroog doon dominer julli mais am nañu ay xeetu feem yoo xamante ni comme yi gis nii moom franchement bu ñu waxantee dëgg rek léegi téyetul benn góor lu tax dafa sàppi